nag yi nga xam ne amoon na ci marché Ocass bu Touba que bu protection civile ñi ngi woon ci dëkk bu sell bi di Touba ngir visiter googale que marché ñi leen dalal nag di Aziz di kuréel gi nga xam ne rek moo dajale commerçant yeeg industrie yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal gannaaw nag saytu gi nga xam ne itam jot nañu ko amal boobale délégation préfet bu Mbàkke jiite ko ne it am na ay xalaat yoo xam ne amal nañu ko ngir gën a méngale jamono boobale marché di marché Ocass bu Touba muy Sénélec muy maire yi muy commerçant yi muy sapeur pompier ak keneen koo gis fii mu nekk ku yëngatu si wàllu sécurité marché ku nekk di nga xool gis nga ubbi nga sa bët xool nga li nekk si marché yi di nga tëral sa plan d'action. gannaaw loolu itam nemmeeku bi nga xam ne moom préfet bu Mbacké def na ko ñenn ci commerçant yi tàmbaliwaat lu jëm ci wàllu ko njaay ne nañuy sampeewaat seeni plan mu leen di axtu ca googale ak jëfin di xam le ni waa ACIS nañu wax ak ñoom lu ko may rek leneen mën na leen cee. ñi nga xam ne dañoo seen bâtiment dafa lakk sapeur pompier intervenir fa sotti fa ndox xam nañu ne ñi xam bâtiment yëpp xam nañu ne ndox moomu ak dayo bi mu toll buñ ko buñ ko dóoree si bâtiment bu mel noonu mu ànd ak safara ba fa nekkoon bâtiment boobu na mu nekkoon nekkatu ko il faut ñu saytu ko donc boo ñëwee nga gis bâtiment bi yaakaar ne yow ni nga ko gisee sa bët noonu rek la tëddee nga bëgg a ñëw encore commencer di ñab-ñabal mhm. loolu aussi ay danger lay indi moo tax ñenn ñi seen euh, borom magasin yi nga xam ne seen magasin la fi ñu ko nekk amul am nañ si droit mais dañ leen ne am na parce que nit ñi koy fréquenter seen bakken mi ngi si xottu gerte mhm. waaw euh, ay menace la am na ñeneen ñoo xam ne dañu nekk si installation mooy ñi nga xam ne ay euh, ay tablier lañu ñu woon mhm. am na ñuy commencer di defaraat seeni fondation cantine yooyu di defaraat ay fondation du teg mais nit ñaa ngi dem si waxtaan di réorganiser waat bu ñu demee si waxtaan ñu jàpp ne ñooñu dañu war a jóg foofu kon nan nañu war a def bu ñu leen fa yëkkatee ñu ñu jiwal seen kàddu ne dañ leen di bund moo tax ñu ne waa ASIS loolu du question wu responsabilité maire yi wala responsabilité autorité administrative d'abord responsabilité commerçant yi lañ fii ay kuréel daf fi am désordre amu fii nañu respecté seen kuréel yi nekk fii ñu ne leen nañu dem ñu waxtaan ak ñoom ñu wax leen ne kenn waxul ne nañ fa jóg bu ñu fa jógoon mooy li gën ndax fa doom a nga fa dóom boobu di ko noyyi ay problème la si dënn mais bu fekkee dem nañu ba ne dañ fay toog en attendant ñu bañ fa teg loo xam ne buñ koy dindi day metti si ñoom li ñuy wax installation précaire moo gën loo xam ne mën nga ko lalli booy dem boo ñëwaatee suba nga teg ko fa le temps que ñoom waa ASIS bi ñu jëlee kàddu gi rafet lu baax délégation bi ñëw googee nga xam ne itam ñëw nañ ko ci marché Ocass bu Touba di xam ne ne lu ñu doon xaar la waaye nag jamono ji am na ay ponk yu bëri yoo xam ne itam ñu ko ciy séntu loola itam bokk ci jafe-jafe gi nga xam ne yàgg nañ koo jàmbat muy jafe-jafe gu jëm ci wàllu courant rawati nag branchement yi nga xam ne jaarul yoon waaye itam li ñu leen xibaar mu dal seen xel muy marché bi nga xam ne rek guddi gi dinañ fi amal ay poto yoo xam ne solaire lay doon bu ko defee jafe gi wàllu courant guddi gi mën a saafarawu li nga xamante ni mooy poto yi nga xamante ni ay salaire la lañ bëgg li wër marché bi yëpp mu doon ko nga xam ne guddi gi courant dootu fi dox lépp salaire la doon mu leer nañ guddi gi ñu mën ko ci moom tam mi ngi ci waxtaan waxtaan na ci nga xam ne moo yor projet boobu jàpp nañ ne marché Ocass ci la bokk kon ñu ngi koy séntu incha allah wër marché bi lépp doon ay poto salaire ndax poto salaire moom du maas du def dara bu defee ñun naa loolu fete ñu jël daar daar mën koo defaraat seet li nga xamante ni mooy wala mooy branchement clandestin yi ñu seet li li yaaduwut ñu fexe ba dindi loolu jël na ci ay engagement taxaw na ci joxe na ci ay ndigal ngir ñu mën koo def kon loolu duñu rafetlu jotaay bi nga xamante am na